passé rek waa Total dañoo gerew ay ceeb yi am gunóor ay sax nga koy jox jaamu yàlla yi ñu koy lekk waaye loolu dafa metti si xol bi nga bàyyi boo jàppee nit ki danga war a jox cër garde yi boo dañuy xeex sa xeex bu ndaw sax ñu bëgg porte bàyyi ñu dóor dóor yi métti bàyyi mën nga fa gaañu am na ñu nekk xolal Dantec fii nii pavillon ñu dóor dóor yi métti bàyyi tamit man boobu noonu foofu la gaañoo ñu ñaan seex bisoo yëpp mooy man ma téye dëgg sama tànk mais ala ak dañ koy wax prison dafa métti garde yi joxuñu jotirement yi cër bàyyi cour boo xamee ne nii boo génnee huit heures suba onze heures da ñee génn midi deux heures trois heures nga dugaat kake noonu li ngay dugaat une heure ngay dugaat si biir boo duggee une nga toog tuuti une heure de trois heures ngay génnaat ba quatre heures quatre boo ko génnee cinq heures ngay dugaat boo duggee cinq heures ñee génn ba cinq heures six heures dugaat waaye koso bi métti na trop ñi yóbbu foofu noonu doomu jàmbur yi nañ xool li ñuy def waaye bitig bi li muy jaay bitig bi li muy jaay bitigu koñ yi ko ñuy sax duñ ko jaay waaye mburoog ton boo xamee ne nii buñ ko diwee nii duuli ñi la ñuy sotti dèjà pon bi nga xamee ne fii dañ la koy may sax dañ la koy may ñu koy jaayee lu tuuti du ci dërëm di la bundu xotal di la sonal ba ñoom ñoo fay bandi de mais tamit ku fa dee ñoom garde ñoo la rey man loolu damaa wóor ndax am na garde yoo xam ne ñoo soxor ba duñu wax man def naa fa ay couleur yi mais dama ñëw génn mais koso bi xoolal nekkul yëfu tapet yëfu góor la góor yàlla buñ la fa mos a yóbbu nga fay dem di raxasal ay nit ay bool wala ngay topp ci ginnaaw nit ñi di leen maral seeni taat ñii di fa dem na ko su dul noonu nga gis ba ñoo xam ne nii dañuy séy ak ñoom si biir koso bi mais champion bañkat da ngay doon bañkat ba koro ngay dee man koso bi ba nu ma fa libéré sama lépp xolal ñëpp mu xam foofu koso bi ñëpp mu xam man kóol lépp ñoo ma koy jox di ma jëndal si biir bitig bi di ma jox ay paquet may téye mais xam rek loolu yëpp liggéeyu nday la añu doom match la rek moo ma fa yóbbu woon mais du match sax affaire de politique li ma fa jaaree rek bëggoon ma xañ élection yi mais yëmbal dama fee def loo xamee ne nii nii la sawaay ñoom xam nañu sax man kii dina fekk élection yi ndax loolu suñu borom moo xam moo ñaale trois mois lañ ma tëjoon yàggul dara maa ngi a ñëw nii di baalawaat ak ñëpp di wax nag booy caga cagalu ci YouTube beeg ci TikTok bi seen papa ñëw nañ matuñu ay bandi matuñu sax ñombe nañ jàppale jeunesse bi police yu bari yuñ fii ibbi nii nii nii yu bëri yuñ fii ibbi nii jaaxleeg jommi moo tax ñu ibbi ko mais police yi ibbi mënoon nañ ko xool ay santar waaye jàppale jeunes yi ñu dem liggéey nañ jàppale jeunes yi te yàlla gi tax ñu dem liggéey moo gën ñu jël doomu jàmbur ji leen yóbbu si biir naka su dul noonu ñu fay yàqu ay xale yu ndaw nga jàpp leen tëj leen deux ans si tribunalu Guédiawaye trois ans quatre ans cinq ans tribunalu Guédiawaye attuwul yoon. kumba am ndey kumba amul baay moo fa am tribunalu Géejawaay man maa ko wax te du ma taay di wax ba ki fa dee woon kawmaan boobu Seex Ñas noon noon ne ma leen dama ci dëgg bal bi ba si kanam mais lu mu yàgg yàggum dama koy wax li tax ma siy dëgg bal bi dafa am lu ma lu ma wojox woos moo tax mais man du ma tapet loolu noonu man maa koy sulli yaay Seex Ñas toog naa fu nekk di ko déglu muy jooy naan sama doom bi lu ko rey war naa kaa mën a xam ay ku gisanteeg Balla mu wax leen lépp ah ñun làqatuwuñu nëbbatuwuñu ñun yëmbal leen dëkk banlieue sar koso bi xoolal yàggum yàggum day jeex bàyyi affaire rek baani baani li ñuy teg ci kaw town bi fii nii di jël fii nii police bu bees bii nii niñ ma deferee ñoo la gën a xamee du yoon bëggoon buzz moo tax ñu defeere ma man ñi ma fa yóbboon xam naa leen jàppee ay benn mbalit buñ ñëw di ma paleeteel mbalit lañ ma boole nag dossier mais ba ñëwee procureur bi si bi sama tur la jaar na ma Balla Mbaam lan moo lay indi fii ma ne ko siw gu ëpp rek moomu fi indi defuma kenn waxuma xeexuma xeexaanuma man sama loxo si kaw soxlawuma alalu jàmbur fu ma alalu jàmbur fekk fa la may bàyyi jamono juñ toll di leen wax na nag koso bi tar na tar yi joxuñu Gelmani cër giñ moom gardi ci jëm boppam joxuñu Gelmani cër gi moom duma taay di wax te damay pose fii nii duggaat bu gën a yéeme foofu noonu millions yi ñu yàqate ci dëkk bi yëmbal gii dañ fee war a defar leneen ak leneen ak leneen ak leneen